dama ne luñ fi indi ñun moy association de malfaiteurs ak vol en réunion ba Senelec wootee Sénégal and ci ak nguru makissal andu ànduñu si tey ànduñu si ëllëg man ma lank ma bañ fayuma suma courant couper nañ courant bi su leen su leen neexee nañu couper wante ñun ñoo lank ñoo bañ benen bi moy Guy Marius Sagna di un citoyen exemplaire un bénéfice de ce pays un patriote le kay jël diko tej tëj diko jay ko jaay doole ànduñu si tey ànduñu si ëllëg ñu ñu ñu dëpp keesu poste dëpp keesu kudd euh, dëpp keesu euh, Prodac ñom kenn du len woo ñu ne dañuy woo ki Marius Sagna il exerçait un droit constitutionnel dama ne mbokk yi Guy bu muy manifester dafa am ñu mo àndaloon ñom dañ leen bayyi parce que étudiants dañuy jóg wane seen naqar Macky Sall ragal la ragal la tàppat la dama ne na ngeen jóg dama ne suñu société yangatu na suñu société yangatu la Macky saay saay la dañu respecté suñu Sénégal